xibaar yi dañu ak li nga xam ni wala boog leen ci bopp xibaar yi bëgg a faram-fàcce ah, nga xam ne FC Barcelone lay doon ak ki nga xam ni ah, moo nekk ah, Cristiano Ronaldo ak. Euh, doomu porte bi borom doomu Portugal bi nga xam ni yëkki na euh, benn euh, bir accident muy Bruno Fernandes nga xam ni gonay Real Madrid lañ koy dooree a ñam ña nga xam ni ña ngay wéy di sarxool la ginnaaw ba nga xamee ni FC Barcelone nërmeelu na démb gonay Real Madrid yi fekk ñu gañe nga xam ne daanaka la nga xam ne mooy championnat Espagne jël nañ ko pare fi ñu toll nii may waxee yow ay quelques réglages ci desaat muy ay match yoo xam ni daanaka bu ñu ko yëkkee bëreetul benn wala ñaar lay doon yoo xam ni bu ñu ko dóoree dañuy jël la nga xam ne mooy championnat président espagnol ba nga xam ni fi mu toll nii jigéen leen bu ngeen gisee gone yi noonu ci image yi daanaka sarxool le nan ba euh, sonn ndax euh, la leen gën a ñor euh, gën leen a jige mooy ñaari ku yi ñu dë yi ñu dëgmal benn ba moom daanaka ñu ngi ko téye ci loxo ak Bruno Fernandes mi nga xam ni di ngeen ko gisee nii mu dar bopp ba dafa yëkki benn accident boo xam ne am na ko démb nga xam ne bi muy doxal fële nga xam ne mooy Angleterre ca la def benn accident waaye nag jàmm xéewal rek ndax loolee looy wàññilu ko moom la Manchester di football bokk na ca les Zapata dina ca football ak Cristiano Ronaldo mi nga xam ne moom ngis ngis nii ci image yi euh, mu ñàkk benn doomam bu jigéen boo euh, xam ne bu doon doona wala boog benn doomam boo xam ne ab tef bu doon door a euh, juddu ngeen am ko ci Aladji Malick TV mu nekk information yoo xam ni heure bu ñu leen ko indee day nekk information yoo xam ni te leer lay doon ci Aladji Malick TV.